salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi safoo di ànd ak ñun seen télévision bu TV euh, ñoo ngi fi nga xam ne nii nag moom mooy bërëbu cardiologue bi nga xam ne ni moom moo nekk fii ci diwaanu Mbour loolu nag boo leen nga xamee tey euh, war a waxtaan ak gën ci li nga xam ne ni moom mooy wàllu wér gu ku ne xam ne ne jamono ji tolluwaayam ci àddina euh, xaw na salfaañoo tax na nag ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ci yëngu am ci xam-xam di ci dox di ci yëngu saa su ne ñi rek séq ak ñoom waxtaan séddoog ñoom it seen xam-xam ñu waaxee ko askan wi tey nag ñoo ngi ak ki nga xam ne moom mooy docteur taaban nekk médecin en cardiologue nekk nag fi nga xam ne moom moom ci diwaanu Mbour ñëw fi nag pour tamit gën a mën a yombalal ñi nga xam ni ñoom ñoo am wopp googule eh, seen maanaam seen secours ak seen wàllu gën a aw ndax kat ñu ci bëri dañ daan paas dem ba Thiès tey jii rek mu ñëw gën ñoo jege euh, donc nag médecin de proximité la dañ koy bàyyi rek mu nuyoog téléspectateurs yi laataa rek ñiy gën a xaamaamal docteur nuyu leen la. Euh, maa ngi leen di nuyu Babacar di nuyu suñu mbokku yi yëpp euh, waa Mbour TV di leen ziar donc comme ni nga ko waxee rek gën a waxtaan ci wàllu wér gu yaram. Eh, gëna xamal aussi askan bi suñu taxaway fi ci mbour ak eh, pour maladie ak pour ñam mhm. tay ji buñ doon dugg suñu waxtaan xamna na kuy tambali walu wër gëram eh, covid bi nga xamné ni mo ngi fi mo ngi fi tay ji taxaway bi ngeen xamné ni am ngeen ko en tant que cardiologue Euh, waaw Covid bi mu ngi fii léegi moom umpul kenn yàgg na fi moo ngi fi bëgg a yàgg euh, ci réew mi donc euh, am na ay docteurs yoo xam ne ñoo ngi ciy góorlu bu baax ñun ci lañ bokk yi am taxawaay bu rafet donc ñoo ngi leen di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci santé bi. ak euh, ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi ñi nga xam ne ñooy aar kaaraange réew mi euh, ñoom ñëpp ñoo ngi leen ci jaajëfal donc feebar bi dafa feebar nekk feebar boo xam ne dafa war àdduna yëpp jaaxal ñëpp mais actuellement ci jamono ji ñu toll nii am nañ ci yaakaar gu takku ne am na ay mbébét yoo xam ne gis nañ ko ay jàngat yoo xam ne am nañ ci yaakaar ne incha allahu bi bu ñu toppee ñi nga xam ne kàngam borom xam-xam yi ci àdduna bi yëpp wax bu ñu leen toppee ci li ñuy wax dinañ ci am wax sa dëgg yàlla ndam ci feebar bi te dina jóge ci suñu réew mi. Mm-hmm. tey jii coow li bëri na ci wàllu ñàkk bi ku ci nekk mu ci wax la mu xalaat yow boo ci doon wax lan nga ñuy wax ci vaccin bi nga xam ne nii moom la Sénégal tànn pour amal ko campagne de vaccination bi. waaw ci wàllu vaccin bi man damay rafetlu euh, njiitu réew mi di rafetlu ñi nga xam ne ñooy euh, yor ministère de la santé ak euh, di ci commencé par njiitu réew mi nim ñu mën a andi suñu réew mi vaccin bi te ñu bokk ci réew yi nga xam ne ñoo njëkk commencé ci wàllu ñàkku bi ci Afrique donc ñoo ngi koy rafetlu vaccin bi pour wax ñun malaat yi nga xam ne ñoom la ñuy topp ne vaccin bi dañ leen di ñaax pour ñëpp dem ñàkku ji parce que bu ñëpp ñàkkoo dinañu aar ñun ñëpp vaccin bi euh, alhamdulilah macha allah saytu nañ ko saytuwaat ko bokk na ci vaccin yi nga xam ne euh, yu gën a baax la donc euh, moom la ñu andil suñu réew mi donc ñoo ngi ñaax ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu santé bi ñun commencé nañ ko sax gis nañ suñu ministre bi euh, def na ko ak ñeneen ak ñeneen ñun tamit euh, ñoo ngi xaar war nañ ñàkku ji incha allahu rabbi euh, ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo am yenn feebar yi ñoom lañ koy tuddee cible prioritaire yi comme ni ko ministère de la santé tuddee ñu ñaax leen ñu dem ñàkku ji parce que buñ ko defee dina leen aar aar tamit euh, ñi leen wër ba nga xam ne feebar bi dinañ ko mën a taxawal euh, nit ñi doxiwaat seen soxla euh, économie réew mi ak réew mi ni muy doxee gën a continuer dox normalement. mu mhm. ngi noonu xam naa ci li nga xam ne moom mooy surtout ministère bi sax boo duggee dalay laaj ndax da am ay maladie chronique am déet lan mooy maladie chronique. waaw euh, maladie chronique nga ko mën a xaymaale ci lu gàtt mooy maladie feebar boo xam ne euh, li ci ëpp dafay yàgg ci yow te li ci ëpp amul faju amul mënul wér mënul dëñ ci yow donc euh, li may joxe rek bu ñu xoolee benn exemple maladie chronique mooy lu mel ni insuffisance rénale wala lu mel ni insuffisance cardiaque yi wala lu mel ni jabet wala lu melni hypertension artérielle yoyu bokku na ci yi wax fièvre maladie chronique parce que nit ki euh, bu ñu démé ba gis ko li ci ëpp amna ño xamné mën nañu wër mais amna li ci ëpp yo xamné day jar ñu top leen docteur di leen seet et day jar ñu jël ay garab euh, li ci ëpp seen giru dëndo donc ci xayma dal lool moy maladie chronique. Mm-hmm. tey jii ba ñu xolé tamit ci réew mi euh liñ ci fi gëna némé ko moom moy fièvre yu gaaw yu gaaw yóbbu nit. bokk na ci malaise bokk na ci tamit dafa amoon arrêt cardiaque yu ñu mel te jii loolu loo jàpp ne moo ko indi. waaw euh, malaise yi arrêt cardiaque euh, bokk na ci li ëpp li koy andi euh, bu ñu saytoo bokk na ci li ñuy wax feebaru xol yi donc dañu nekk ci réew moo xam ne ñun ci suñu aada tàmm ñu di dem kër docteur pour saytu suñu yaram rek euh, dafa am ay feebar yoo xam ne tant que demoo kër docteur des fois duñ ko mën a gis te du gaaw a feeñ ci yow wala buy feeñ ci yow rek day fekk ëpp na loxo donc moo tax ñuy ñaax nit ñi ñuy teel même bu ñu yëgul dara seen yaram di góorgóorlu di dem di saytu kër docteur donc arrêt cardiaque yooyu nag bu bu ñu saytoo kër docteur bu baax incha allahu rabbi dina am yu bëri yu wàññeeku parce que dina am feebar yoo xam ne dinañ ko gis mën ko jël euh, faj ko traité ko comme ni mu waree ba nga xam ne nit ki du yegg foo xam ne day laaj ñu defal ko arrêt cardiaque donc euh, loolu daal lañ ci mënoon wax donc li ko mën a joxe nag comme niñ ko waxee bëri na bi ci ëpp feebaru yi feebar tamit yu mën a joxe arrêt cardiaque euh, lu mel nii des fois euh, yenn euh, ñi nga xam ne dañuy am jabet ñi nga xam ne toppatawuñ ko bu baax mu dem ba jàpp xol bi sonal ko lool mën na joxe arrêt cardiaque lu mel ni des fois feebaru tension bi bu demee ba loofal fal xol bi ba nga xam ni xol bi amatul doole mën na bu yàggee ci moom mën na ko andi arrêt cardiaque mën na dem tamit mën na nekk loo xam ne xol dafa am ay siidit yoo xam ne ñoo koy dundal siidit yooyu bu fattee li ci ëpp moom mooy gën a gaaw a andi arrêt cardiaque te fatt boobu des fois cholestérol bu bon bi bokk na ci li nga xam ne moo koy joxe moo tax ñuy ñaax nit ñi ñuy xool ci li ñuy lekk di yëngatu di saytu seen docteur di topp seen docteur li ñu leen di wax surtout di faral di dem gis cardiologue pour mu xool seen xol bi ndax amul benn feebar bu ci nekk boo xam ne mën na leen andi gàllankoor ëllëg. tey jii fi nga xam ne moom mooy ci diwaan Mbour amuñ woon change am bërëb bu mel nii. comme am nañ ko lan ngay wax waa Mbour ñu gën a mën a bàyyi xel au lieu ñuy dem ba Thiès ak lu ñu mel am na bërëb bu nga xam ne da leen di saytu ci côté mu ñu mel wàllu cardiaque yeeg euh, lu ñu mel. donc mm-hmm. tey lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mbour. waaw ñun dañuy rafetlu euh, ñëw bi fii dañuy rafetlu tamit euh, yéen ñi nga xam ne yéen ñu jox opportunité bi waa Mbour TV pour ñu xamal askan wi ne léegi am na mm, cardiologue. boo xam euh, wala service de cardiologie bo xamné ne ngi fi bu nga xamné ne mën na dimbale askan wi nga xamné ne nit ki des fois amoon na ay jamono yo xamné ne euh, des fois dañuy tok lu yagg duñ ko gis wala dañuy am ay rendez-vous yo xamné ne fay xaw sori donc ñuy ñaax askan bi di leen wax ne légui amatuñ jaxaré ci li nga xamné ne wàllu yaram ci walu cardiologie amna fi ci walu mbuur ay structure yo xamné ne mën nañ leen jël en charge ci structure yooyu suñ boss ci la bokk bo xamne buñ fa ñëwé dinañ leen mëna dalal lépp li nga xamne warlu na ci seen wërgu yaram ci seen walu xol dinañ ci taxaw def ci ñun tamit dañuy liggéey ak yeneen structure yo xamne nit ku xam ne sa wërgu yaram dafa laaj tamit benen spécialité wala benen docteur bo xamne xam-xam dafa màcc ci leneen ñu bolé lak mom dañ lay bolé ak mom donc dañ koy rafetlu te di wax ne mo ngi fi donc nit ñi mom mën nañ ñu xamne amna fi ku am loolu mën nga jaar ñu xool sa wergu yaram am saytu ko wax la li ci nekk ak li ci mënti nekk ñu defal la ko incha allah traitement bi fii naka lay demee parce que ñu ci bëri nag xamuñ sax docteur tambe du moy kan xay mhm. mm, na eh, dañ la daan gis mhm. peut nga ànd ak équipe bi mhm. di testé joueurs yeeg lu ñu mel mais ñu ci bëri xamuñu tamit importance bi nga xam ne nii feebar bu ñu mel am na ko ak tamit maanaam eh, nombre de mort yi nga xam ne nii mu ngi koy ya créé dans le monde waaw nit ñi eh, li ci bëri dañ koy dañ koy commencé nañ ko xam parce que léegi moom da ngay toog ba ya mu yàgg ci gox gi nga dëkk wala des fois ki ngay denc daal ñu naan la ah pourtant de kii bërki démb la fi nekkoon doon na waxtaan nit ñu ne la ah da dox dem bërëb sàngam daanu ñu ne la ah buñ ko jëlee balaa ñu koy yóbbu bërëb bi nga xam ne moom la ñuy fajee fekk na moom mu daanu am yàlla jël ko euh, te am na ci yoo xam ne mën nañ ko moytu parce que moytu bi mooy lan tey bu dee dafa am looy yëg sa yaram parce que am na du tëb tëb rek feebar yooyu du tëb tëb rek ñëw ci nit am na nu muy manifesté woo ci nit am na ñoo xam ne lañ koy xamee docteur waaw ni ñu koy gën a xamee ci manifestation ci nit yi bu dee problème mu xol moo koy andi li ci ëpp nit ki day jékki-jékki am xol buy métti li ñuy wax nit ñi di leen ñaax koo xam ne da nga yëg ne sa dënn bi dafay métti wala nga yaakaar ne sa xol mooy métti li ñu lay ñaax mooy nga dem kër docteur ñu saytu ko xool ndax xol bi la wala du xol bi parce que bu dee xol bi la dafa bokk ci li ñuy wax urgence li nga xam ne dañuy dañu war a gaaw jël ko en charge faj ko parce que buñ ko def rek nit ki mën na ko gàllankoor wala bakkanam mën na fa jaaree rot donc loolu benn la ñaareel bi bu dee koo xam ne xol bi dafay yëg ne dafay gaaw bu baax par exemple buy dox xol bi di gaaw am na ñu koy tuddee ay palpitations baax na nga dem saytu kër docteur ñu xol palpitation yooyu lan la am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki di gaaw a sonn bu ñuy dox wala bu ñuy yëg ay escalier atelier wala bu ñuy def mouvement bu ndaw rek di gaaw a sonn di gaaw a fàtt loolu nag dafa laaj tamit nit kooku dem kër docteur mu saytu ko mu xool nan la ñu xool ndax du problème mu xool parce que am na problème yu xool yoo xam ne noonu lay dikkee parce que comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ci samay wax li ci ëpp ci li nga xam ne mooy faagaagal nit ci lu gaaw problème xol lay doon donc dafa am solo nit koku dem seeti cardiologue wala même bu mënul am accès ci cardiologue mu dem ci docteur biko gëna gën jege wala ci bërëbu fajukaay bi ko gën a mu wax leen li muy yëg ñooñu danañ ko yabal ci ay bërëb ñu defal ko ay examen lu melni ay électrocardiogramme mom moy examen bi nga xamné mom mo gëna gën ci ci ci ëpp ci cardiologie li ci ëpp mom la ñuy def mom moy dimbalé nit ki ñu xol ndax xol bi am lu ci nekk wala amul lu ci nekk bu lu doyul des fois day laaj ñu suux def ci li ñuy wax ay échographie ak yooyu pour gën a saytu mbir mi pour gën ko leeral pour gën ko wax lan moo ci nekk ñu mën ko toppatoo bu baax. xanaa kon soriyaantul ak feebar bu mel ni asma de nga xam ne gars yi dañuy fàtt ak yu ñu mel. waaw asma euh, xaw na uutee tuuti parce que asma li ci ëpp ci ci dënn bi la. donc du du nit ki dafay fàtt mais fàtt boobu li koy andi du problème mu xol

lu mel ni fatt lu mel ni xol buy gaaw lu mel ni xol buy métti euh, lu mel ni euh, par exemple gaaw a sonn demal nga saytu kër docteur docteur bi xool nan la moom dina xool ndax asthme la ndax problème mu xol la ndax problème mu dënn la ndax beneen feebar la donc mu gën a dalal sa xel toppatoo feebar boobu wax la li ci am ak ñu ñu def ko. nit ñi tamit est-ce que ragaluñu ragaluñu ragaluñu euh, ñëw ci bërëb yi. Hmm. ragal naan koppar gi day cher rek liggéey gi fii moom nu muy waaw euh, xam nga nit ñi moom euh, comme niñ ko waxee nit ci bëri dañuy gis benn bërëb rek ragal ko ci ndax naan seeraay bi euh, ndax mën naa ko ndax mënu ko mënuma ko mais dafa am ñun li ñuy wax ci suñu métier li ñuy wax wér-gu-yaram amul njëkk nga dem ci bërëb boo xam ne danañ la mën a saytu wax la li ci nekk faj la ko moo gën nit ñu bëri dañuy yaakaar ne dafa cher mais bërëb bi cherul euh, euh, ku fi ñëw boo gisee secrétaire bi ñoom dinañ la wax te comme li ñuy wax rek comme bërëbu structure santé yu bëri la lu mel ni ay hôpital yu mel ni ay structure ay poste de santé ñun noonu la ñuy doxee comme ñoom am na ñoo xam ne tam lu mel ni li ñuy wax ñi nga xam ne dañu am assurance ay IPM ak lettre d garantie am na ci ñoo xam ne dañuy liggéey ak ñom donc euh, pour gën a oyofal nit ñi sen prise en charge comme niñ ko waxé fi euh, ñu bëri dañuy yaakaar dafa cher torop mais ñoo ngi góorgóorlu parce que comme li ñuy wax rek il faut être euh, auprès de la population li ñu li tax a jóg docteurs yi nit ñi jox leen seen wér-gu-yaram ñu gorgolu ba ñoñu mëna def dox sen soxla am wergu gu yaram parce que buñ ko amé rek suñu ndam la ñun ñëpp donc képp ko xamné day yëngatu ci wergu gu yaram loolu la li ci ëpp solo du xaaliss bi mais wergu gu mu nit ki donc ñuy dalal xelu nit ñi né buñ ko foggé né mbir yi dafa cher cher yoy mais euh, incha allahu rabbi ku fi ñëw di nga am li ñuy wax satisfaction et dinañ ci gorgolu bu baax docteur xam naa dama ñuy résumé rek. Hmm. Euh, nga gën a ñaaxaar askan wi ci seen tamit euh, taxawaay ci wàllu euh, mas yi ndax gis nañ changement climatique yi nga xam ne ni am na wàllu solo masque yi lu ñu mel bokk na ci liy aar tamit ñu yor jàngoro yu ñu mel. Wow, comme niñ ko waxee rek comme ni ko dëkk yu bëri yi defee ak suñu njit réew mi euh, ñi ki nga xam ne moo ministère de la santé bi ñuy wax nit ñi ne euh, barrière euh, dafa am solo te boobu ba tey moo ngi fi même bu nit ñi ñàkkoo du tee ñu continuer di ko def ba keroog feebar bi di fi jógee donc mesure barrière yi mooy nit ki sa digganteeg nit ki lu mu néew néew mu am mètre Nous bi ngay raxasu sa suné wala ngay utiliser li wax ay produits lu melni ni alcogel ngay port de masque aussi liñ koy wax dans des milieux euh, comme li ñuy wax boy dem ci milieu public dans les milieux fermés dans les structures que ça soit privé wala public comme nous avons recommandé ci ministère de l'intérieur euh, dans les moyens de transport sol parce que l'eau est ñuy art buñ ko defee tamit ñuy ñaax askan bi di leen wax ne ñàkku bi dafa nekk loo xam ne lu am solo la ñoo ngi ciy ñaax ñëpp parce que il faut ñun ñu booloo ñun ñëpp ànd mooy tax ñu mën a xeex feebar gi daan ko bu ñu àndul feebar bi duñ ko mën a daan te buñ ko daanee réew mi mën a continuer waat ñun ñëpp parce que am na ñu bëri seen yitte seen i entreprise wala seeni i doxalin yëpp am na yoo xam ne takk na wala demeewul noonu donc ñuy ñax askan bi bu ñu bëggee delluwaat ci dundin gi ñu amoon nañu góor góorlu ñàkku bi te bu kenn ragal ñàkku bi am na ay rumeur nag yu bëri ci internet bi ci nit ñi ci yëpp mais dañuy wax ne am nañ ay borom xam-xam ay kàngaama yoo xam ne ñoo nekk fii di saytu yooyu té liñ ñi andé Sénégal ñun ñi nga xamné ñoy docteur yi wolu nañ ko té ñuy ñaax suñu askan bi né nañ ko def parce que buñ ci gisoon jiixi jaaxa lo xamné dalu suñu xal ñun ñoy ñëk taxaw né dét duñ ko jox askan bi donc loolu lañ koy loolu lañuy wax askan bi ñoo ngi leen di ñaax di leen wax ñu gor gorlu ñi nga xamné ñoy cible prioritaire yi nañ dem ñakku ji ñi nga xamné duñu cible prioritaire jaru ñuy dem jël ñakku yi wala ñu leen di téla ñak nañ xaar ba seen tour jot ñom tamit ñu defal leen ko comme niñ ko waxé parce que amna yeneen lot de vaccin yu ci top pour ñëpp nga xamné Sénégal yëpp dinañ leen mëna vacciner ba fièvre bi jóge fii. Mhm. kon docteur ñu ngi lay gërëm. kay maa ngi lay gërëm Babacar. jégalu ci temps bu ñu jël. non du tout. <laughs> alors ñu koy gërëm di ko sant moom docteur Alioune euh, Tabane euh, nekk fi nga xam ne moom mooy tamit médecin euh, en cardiologie fii ci diwaanu Mbour hmm, cardio bureau boobu nag boo fa bëggee dem boo ñëwee ba fi nga xam ne ni moom mooy ci juuti bu njëkk bi hmm, tali bi jëm hôpital boo jàddee rek immeuble bi ngay jot ci ora banque bi. Euh, bërëb baa nga fa nga yéeg premier étage da nga gis ki nga xam ne nii moom mooy docteur googu léegi mu taxawu la euh, ci li nga xam ne ni tamit moom mooy sa wér gi ram ndax kat comme niñ ko nim ko waxé am na fébar yo xamné mom du bal kenn fum la fekk fa lay jëlé yobul donc nak fagaru mo gën faju té tamit ku ci nek war nga mëna xam sa tollu way ci wér gi ram yan point ak yan point mom nga soxla ñi eh, mu ñaar xew ci askane ci walu maska yek eh, walu vaccin yu ci ñu bay ci xel di leen gërëm yeen yi di gërëm wa eh, équipe bi nga xamné ñam lañ andulon mor diop awasané di leen jox dajé ëlëk inshallah